ancien gloire man. non non. na ko waay. ba Bakary nag yaa ngi. kooku la ancien gloire nag. non Bakary. boo génnee quarante bi léegi nga jege ancien gloire. ma waat nag samay kii de léegi mooy recommencé comme combat yi léegi mu commencé waat mois de juillet lay commencé waat. waaw. juillet bi koy biisaat de. sanction bi jeex na de. jeex de. mais mais mais li nga dégg nii li nga dégg gum nii tey jii li nga dégg ci ndaanaa ni ñoom Beuz ah, Matar Mbaye sa waa ji ah, nu mu tudd Matar bi laa mënta jàppale ko Matar xaw ma loo loo ci jàngatee wax nañ loo am solo wax dëgg yàlla wax nañ loo am solo parce que boo boo xoolee bu fekkee ne ci texte réglement lañ ko teg rek Ama Baldé Modou Lô la mais promoteur bi bu parewul parewul lii bañ kay mooy làmb du am loolu rek la ñuy bañ ma Bakary moom lépp lu muy bañ coow làmb ji lu muy bëri bëri yëpp làmb du mujj am Pikine yëngu pour daar ndax lan ndax benn promoteur bi dafa soxla réinsertion dans la société mu dellu si ci ci biir gaañ yi te dellusi bi mu war a dellu si nag mm. war na mën a am dellu bu am galan pas dellu si boo xam ne ni day nouvelle am dañ ko wax te dee Luc na xam ne moom moo absenté woon benn instant mbër yi mu tëggoon dañoo absenté woon benn instant tamit Modou gaañu na fi Ama Baldé gaañu na fi tey ñu dem bay laam-laamee xëy na d'accord xaalisam moom moo nekk fële mais mën na dawal grandeur bàyyi affaire yi jàll bu fekkee ne combat bi nag année prochaine la ko waa Gaston bëgg tëgg bu waa Gaston rayante tamit nañ ko bàyyi moom mu tëgg ko année bi affaire bi neex na làmb am ndax kum ci doon na baax waaye na làmb am ñaar yëpp combat wu jarmeen yow daal lépp lu ci mënti am daal yow daal bu la coow li muy Ama Baldé day saf muy Modou day saf c'est que parce que pour leen ne couronne bi ñuy reyante du ko jarut parce que affaire bi xam nga laal combat Ama Baldé Modou Lô combat wu jànq la combat wu Ama Baldé Boy Niang combat wu couronne ak ñàkk couronne comba bi dayoo bi muy am moom lay am kenn mënu ci dara maa daan ki yoroon couronne moom maa daan ki yoroon couronne combat na leer foofu nit ñi xam loolu bu ñu jël affaire yi rek tekki ci seen bët couronne couronne tey bi Boy Niang daanee Balla Gaye ak Balla Gaye fi mu toll doon ni ko daanee da ngay gis Boy Niang succès bi mu am nii kon jàppal ne bu dee Boy Niang daanee Modou Lo Modou Lo doon roi des arènes ñàkk ah, moo daan Balla Gaye ñëw daan Modou Lo mi Balla daan ñaari yoon Ama Baldé bu ñëwee freiné Modou Lo revanche la ci moom da ko daanoon mbapat kon day ñëw daan Modou Lo ba ko daanoon mbapat teg ci daan kii doon roi des arènes loolu mooy wax ji yi jël mais mais dama gis ne dama gis ne dama gis ne dama gis ne. coow li lépp lépp li muy am ci làmb yëpp ñun dañ ko bëgg ci làmb mais dama gis ne Modou Lo dafa lulu ci combat bi bu baax. da ciy defar ñaari contrat yi mu tudd xaw <laughs> fi toll nii affaire yëpp ci avantage bu Modou gis nga Modou ñaari camps yi ñu ngi coow Modou moom mi ngi defar di xaar di xool. fuy gars yi di coowee di jekkonte ci seen biir Modou Lo moom mi ngi leen di jekkul ndànk ndànk te tamit c'est bon pour lui xaalis bi day dugg mooy boos daal comme ni ma la ko waxee woon maay boss maay choisir maay boss mooy boss jamono ji mu neex mu naqari mooy boss. mais ndax biru bi sax biru bi am ci diggante ñaari mbër yi ci ci mbër yeeg promoteur ndax Modou Lo sax. terewul loolu loolu boo seetloo xam nga man benn instant ñu ngi doon wax ne dafa blessé yaa ngi ko man man gis nga man toujours damay wax. blessure Ama balde mhm. musuma koo gëm blessure Modou musuma ko gem man personnellement man la engage seen blessure yooyu musuma koo gëm barke yalla yalla am tiim ba fi ñëwee ay yow ni sen blessure yooyu musuma koo gëm blessure yoo xam ni dang koy nëbb blessure yo xamné ni do tek radiographie bu leer nañ ñu gis la nga hôpital tok professionnel né dama blessé won askanu lamb ñu gis normalement ci sportif ay professionnel next, fa nga gañu ñu fay lay million war nañ laa gis nga juge hôpital teg say affaire carrément wane ne damaa blessé ñu ne la temps bi ni jël temps bii lañ koy xayma loolu ci professionnalisme la bokk donc yenn promoteurs yi ay Dakar lañ tout simplement dama koy waxaat Dakar resuut loolu mbër mënoo ñëw ne nga gaañu rek ah gaañu na mbër mi gaañu na ñu dem indil la ay rajo yoo xam ne nii yeneen yàqu nit la <laughs> ñoo wan la <laughs> te hôpital boo fa demee for ay rajo Sénégal hôpital boo fay dem di for ay rajo ci mbedd nga jël rek nga waaw rajo baa ngi nii ñaata mbëri ñoo fi bëre ba pare naan dañoo damboon fekk ni rëq rek li jënd benn rajo rek benn rajo rek ñëw taxaw média yi filmé leen ñu jàllale seen affaire gars yi di leen utal ay lay loolu lay wax bi dañ bàyyi tappale te mbëri ci ah lay lay dañ mais Bakary Bakary Bakary bu lamb mhm. bu lamb tollee fii nii muy Ama Balde Ama Balde nga dégg ñu ne waa CNG ne mënta bëreeg Modou Lo fekk bëriwut ak Gris Bordeaux pour mu mën a bëreeg roi des arènes il faut mu mën a bëreeg Gris Bordeaux ba pare te dégg nga buzz bi nga xam ne tey jii sànq nee na mois de juin bi ñu jëm nii Ama Balde bu waaw mais kon Ama Balde moom moom moom ginnaaw dara daal ko du dem ne wér na. na dem ne wér na dem bëreeg Gris Bordeaux jeex lamb ji yem fa. mu bëree Gris Bordeaux te bu mu fa daanu bu fa moom def fàttel moom Modou Lo na leer parce que nag gaa yaa ngi wax mu mel ne Ama day ñëw rek dox ci kaw Gris Bordeaux lekk ko dox ci kaw Modou loo lekk ko wala Boy Niang day ñëw rek dox ci kaw Modou Lo lekk c'est que en fait dañuy dem ba mujj gi dañuy suul dañuy fàttali Modou maanaam Modou Lo lim am wala Gris Bordeaux lim am ci làmb ji kon Amba Ama Baldé combat bu contre Gris Bordeaux combat de risque parce que moom dans sa sax ni ko nar a jëlee bu ñëwee bu moytuwul den den daaru daaru boo xam ko comprendre sax lu la wax kon na xoolaat li muy def na ne wér na ñëw tegu leer nañ ci ko taabal bi dem bërig dem bërig dans deux mois mu pareeg moom dem jàkkaarloog Modou Lo fekkee ne bëgg naa bëri mu Modou Lo te coow di jug na leer mais munoo wax ne da ngaa gaal bëggoo booy ñaa bëri kële tekki nanguwoo dem bëri Gris Bordeaux te naan da ngaa gaal ne mais mais Ama Balde Ama Balde instant yii nii bu fekkee ne pare na pour bëri Gris Bordeaux tey jii ndax Ama Balde bu yaakaar na bu fekkoon ne pare pour bëri Gris Bordeaux du wax boo ñaar dama nga bëri moom wax nag moo tax ma ne la gis nga ñoom nee naa la soirée boobu ñu doon wax naan ay booy ñaar demal c'est que sénégalais rafet rafetal moo ko yàq mais man leer na ma loolu bi mu koy wax tollu leen fii tollu leen fii dañoo lekk seen i naan seen ataaya gis na gars yi bu ñu waxee affaire yi ñaaw ñu ne wax na ñoo ngi magu pikin yeeg nanga waxuñoo kenn affaire bi xam nga lan dañoo kontaanoon taxaw ne booy ñaar demal mais bu ñu demee jour di dem ñuy xool di jàngat di jàngat moom benn moment nag ñuy xool performance bu booy ñaar ñu xool sérénité u booy ñaar booy ñaar ni mu nar a ñëwee bëre ak ki nga xam ne ni moom mooy Modou Lo ñu comparé xam ne foofu bis bu booy ñaar daane Modou Lo Ama Baldé na fàtte roi des arènes adat na ko fàtte ci kanam lay doonaat léegi nag Ama bu amee nag ay ay ay ay ñitu néegu boppam dañ naan ko eh profitel nga dem bëri jëg kee nga dem bëri jëg Modou Lo avant Boy Niang di ko jël fii loolooy wax mais dañoo teel wax dañoo teel wax loolu day wane rek manqué staffu ama toujours day feeñ day wane ne rek cuune staffu ama mi ngi feeñ ba tey ndax boo déggee Jules Balde ni muy waxee nga dégg per Bakhoum ni muy waxee y a une grosse différence nga mais mais man mais man mais man bu loolu amee gis naa ne man man li ma gën a yéem ci Modou Lo leen rek la chaque jour tey la gën a jafee gis tey la gën a laqatu tey la gën a xam ne ñaari combat yi nekk ci kanamam ay combat ay combat ay combat yi yéeme la te sax euh, Fadam am na benn problème ci ginnaaw de Ama Baldé kan moo ko tëgg bu demee nan Luc Nicolaï Ama Balde. Ama Balde barki dem. waaw moo attaqué Gaston Mbengue fii. gis nga yooyu yëpp day joué xam nga gars yi duñ ci bàyyi xel mais dama ne la am na détails yoo xam ne nii nit ñi duñu ci bàyyi xel mais yooyu yëpp day joué combat li maanaam li xeex lay doon combat bi ba nit ñu jeexee xeex lay doon que ça soit mais ma yaakaar ne xeex bi Bakary ci promoteur yi lay gën a feeñ ci bëri Luc Nicolaï fi ñu moo ko amaa ñooy far jamono ji Luc moo ko ñooy far avant mënoon nga wax ne Luc Nicolaï mooy far ak Modou Lo d' accord mais biñ gisee ne Gaston dugal na ci loxoom ci la xeex bi gën a tàngee ci la affaire di gën a jër jëri loolu lay wax. mais Modou Lo ko Modou Lo moom ko nekk dafa sànni tànk Modou Lo daa yàgg tëddee njaaxaanaay promoteur yi kenn ñoo daan ñëw di ko kolew di foofu mais Modou Lo wax gis muy dem ci promoteur di wanew ndax lan ndax staff bi mu yor père Birama dafa yor staff boo xam ne mat na staff ñoo xam ne kilifa lañ doo leen dégg ci kasaw kasaw booyam yu ndaw yu muy àndal sax bu ñuy wax dañuy ne réglé lu ñu wax n'importe quoi na leer dafa xam nu muy entouragé entourage mais mais est-ce que loolu est-ce que Boy Niang ak est-ce que bu Ama Baldé lan la ñu war a mën a jàngatee ci Modou Lo pour mën a réussir ndax tey jii Ama Baldé combat ma Gris Bordeaux moom am na engagement yu ci jël ci diggante ma Gris Bordeaux Boy ba jël na engagement ci diggante ma Balla Gaye de finir ko tey jii Ama Balde jël na ay engagement ci diggante moom Modou Lo comme ni ko Boy Niang jëlee tey jii comme ñoom Modou Lo comportement bi mu yor ci làmb lan la ci Ama Balde ak Boy Niang war a jàngatee. loo xam ne tey lu yokk làmb la bu fekkee ne Ama ñoom dañoo war a commencé waat à zéro parce que mbir mi du affaire ay ay ay ay affaire yu joxor beek ay affaire yu jël jël ay baatu ginnaaw di sànneek ay ndëgg sërëx du loolu. est-ce que bu dañuy màgg di dem ci làmb. début bi ay cuuna la ñu woon ñu lu ñuy gën a dem ñuy màgg di dem dangay xool mbër mu nekk ak jaar jaaram rek erreur yi Ama Baldé commettre ci ci ci ci palmarès am nga xool erreur yi Boy Niang commettre ci palmarès am ngay gis ne staff bii day digg day gën a dem di gën a màgg di gën a mur di dem staff bii nag gën a di gën a mërmur Ama Baldé potentiel bi nekk ci moom doole ji nekk ci moom bëre bi nekk ci moom lamb ji nekk ci moom du woon yoon benn yoon Ama Baldé di toog ay quatre yoo xam ne du ko bëri du yoon du woon yoon Ama mhm. Baldé ren jii ñuy wax naan Ama Baldé roi de arènes la war a bëri Ama Baldé waroon na ko bëri yaa quatre ans en arrière Siteu sax moom moo leen tane mhm. entourage Siteu Siteu sax moo leen boobu baax kii yàlla Siteu leen tane entourage waaw mhm. mais ndax loolu Ama Baldé yeewu ci ñu toll non non il dort Ama Baldé yeewu ci guddi yi toll ñu nelaw encore ndax saa bu père baaxum génnee waxta tan mu mel ne mu mel ne papaay Bakary saa bu génnee wax toj toj maa ngi moomee saa bu génnee waxe toj toj moom moom ci toj toj ci lay xëy ci lay gon paa kon juste rek na xoolaat ne athlète la yor athlète bi mu yor dafa yor ay nawle ci biir làmb ji moom it moom ay nawle ci staff yi wër làmb ji yëpp gis nañ waa Fass ni ñuy waxee gis nañ foo fer baaxul xam ne rek ah gis nga des fois da nga yor athlète doo xam ne athlète nga yor gis nga Ama Baldé yàlla suñu borom daa am ko may loo xam ne du dañ lu ko lu ko nit jéppi jéppi lu ko nit bañ bañ bañ bañ na ko nangul lam am am na mbooloo am na làmb am na bëre bi doomi mbër la bokk na ci làmb tey esafam moo xam muy magam Jules Balde te waxam waxam ja baaxut père baaxut waxam ja baaxut maanaam estaf zéro dama koy waxat toujours estaf zéro ñaar yi ne saa bu ñu waxee saa bu ñu waxee maanaam dañuy wax à la place sax li ñuy wax ñu sànni ko waa parcelle wala ñu sànni ko waa waa waa face seen biir lañ koy sànnante nga gis nag beneen staff bi nga xam ne mooy staffu mbooy Niang toujours garder la la la déontologie garder la professionnalisme avec ñoom toujours ñi ngi xool tafakaan yi bu duggee di wax da ngay gis toujours mi ngi organiser ni muy waxee ba du am benn pic bu mu sànni loo wax mu ne la CNG CNG bu fekkee ne baaxum na xamut lu xew CNG promoteur bi tëgg combat bi nekk ci ay guuta nañ ko wax xam nga des fois dañuy raay raayal promoteur bi dafa nekkoon ci ay guuta mbër yam tëggoon nekk ci ay guuta mbër yu wér mu benn mbër bu ci yàkkam ci dem laaj beneen combat foofu problème staff moo fa taxaw déjà le fait que rek Ama Baldé d'accord ne day jël ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux munoon naa ne pat xaar nekk ci ay entraînement am xëy na gaañu du ko ci fekk benn nga noonu donc na xam na ne staff mooy yor mbër mbër li day def ñu koy sant ak luñ koy digal amaa Baldé nag du ci moom du ci dara ci coow li staffam rek ñoo baaxut

ndax Siteu boo ko xoolee gis nga yëgut Covid de yëgut dal lepp ça s'est passé bien nga xolat benen yenen écurie yi ngay dem tout ça passe super bien Pikine moy problème bi te Pikine problème bi dafa jëmee bor moy fan muy waa kër Fallaye Balde c'est ça le problème foofu la foofu la coow bi ne légui léegi léegi léegi promoteur bi ci ci kaawu ñaari promoteur yi bu fekkoon am nga ci cadre yo ci wax ci ñom ñaar ñep bëgg teug modlo bo Lo boo roi des arènes la lek ñoom ñaar ñëpp ki ñu bëgg tëgg mooy Modou Lo boo xam ne nekk yaa ngi ragal Modou Lo njëkk a bëri sama adversaire bële. waaw daal di ciy jëlee defet loolu. suñu borom daf ñoo may yàlla suñu borom daf ñoo may ñu may ñu ay promoteurs yoo xam ne des fois ay cuune lañ ay daqaar lañ am ne ay daqaar la ñuy door duñ comprendre dara moom bis yoo xam ne yi fi defante moo leen di ñor maanaam doon ay kilifa pare bëgg di defante Luc Nicolaï da ngaa tëgg combat gisoo beneen promoteur bu ci wax nga ñëw boole ñoog EDK owel xaw ma xaw ma PK PK xaw ñu def seen face à ñu jékki-jékki xam nga TV yi ñëw bëgg yëngal làmb ji bëgg yëngal waa seen affiche affaire yi bizarre jaxasoo justice am ci yoon normalement bu ci si justice amee yoon rek CNG dafa waroon a récupérer war xaalis bi delloo ko pare ci ko woon a garder ba léegi loolay wax ba justice amee yoon woon ci problème boobu même bu fekké né nit ki nga xamné ne ni concerné wut lamb ji sax nga gis né nit ki nga xamné ni mom moy moteur événement bi dafa am problème ak justice né le hey dom ji ndax da ngeen bëgg jël date mënu la waw nga la ko jëlal léegi bu jëlul mu bax c'est ça la réalité des choses donc nag Luc Nicolaï ñëwaat na ci jàmm loolu lañ ko doon ñaanal mu wara def réinsertion dans la dans la société d'accord comprendre nañ ko bu fekkee ne nag qui di Gaston production ñoom seen jëmmi bopp xam nañ ne làmb ji déwén lañ ko bëgg a yóbbu lañ demee esprit de grandeur xam ne làmb la ñuy liggéeyal ñoom ñëpp que ça soit ñu bàyyi Luc Nicolas, tëgg combat Amma Ama Baldé moy combat bu gëna a mérité dama koy waxat sama baat kaw li règlement wara a moy combat bu gëna mérité bu gëna wara mëna jaar yoon parce que combat bobu lañ ñu njëkk siffler combat bobu lañ njëkk régulariser combat bobu la xaalis bi njëkk dugg fi bi biir CNG loolu nag dépend de Bira mi nga xam ne mënul yor këram ni muy gérer affaire yi dépend de Bira Sène nga xam ne ni xamul lu muy yoree CNG bi di tey day tartale di làmbaatu kon tey yaakaar naa ne bu doon Alioune Sarr yi yëpp du fi adi ndax am na caractère boo xam ne yëpp gérer woon na ko bu yàgg kon tey promoteur yi nañ xam ne ñoom ñaar nekkuñu ay ennemi làmb lañ fi nekkal làmb la ñuy bëggal ak làmb la ñuy bëggal tey nga tëgg Modou Lo Boy Niang wala Ama Baldé Ama Baldé Ama Baldé Modou Lo loolu population bi nga koy defal gis nga titre roi bi ça ne signifie rien du tout mais parce que xam nga dafa amul musul am waaw mais xanaa waaw mais Bakary Modou Lo mooy naa mais xam nga lu tax ma naan Modou Lo des arènes du tout dama lay yóbbu ci domaine professionnel waaw domaine professionnel bi xam nga moom mooy la mm-hmm. tey tey jii bu fekkee ne ci làmb ji dañuy wax roi des arènes normalement normalement normalement dafa am raaya yu ñu ko war a jox yoo xam ne nii tey buñ ko daanee ñu gis na tey dañuy def transfert mais amul transfert amul dara promoteur yi ci boppam. mais ndax ndax loolu ci mbër ndax te jii loolu ci CNG bi la war a nekk wala te jii mbër yi nga xam ne nii wala promoteur bi nga xam ne tey jii moom moo yoroon titre ku tëgg ki ki yor roi des arènes moo waroon a xool nan lay proposer mbër bi nga xam ne moo yor roi des arènes di ke ji mu ñëwoon ba ci Modou Lo ne ko gis naa lu mat cinq mbër. wala kat mbër dama bëgg tëgg tournoi ak yow nga jaay ma titre roi des arènes bi nga yor teewul dañ lay fay nga teg titre bi boo leen daanaatee ñu xam ne yaay titre yaay roi des arènes amul loolu nouveau chapitre la ñuy def rek dañu tourner page bi ne eh lamb deux mille vingt quatre à partir de deux mille vingt quatre CNG dafa taxawal nouveau réforme moom mooy lan ñu catégoriser lamb ji parce que nag roi des arènes catégoriser lay laaj ah dama la koy titre bi ça signifie da ngay gis ku doon quatre-vingts kilos daan ku doon cent kilos naan maay roi des arènes te mu leer na la yow ki nga xam ne nii ma nga doon quatre-vingts kilo nekk ci booy yi moo la moon fuuf franc ñi nekk ci kaw ñëpp franc mënuñu franc <laughs> tu comprends kon lu gut maanaam organisation bi moo logique gut ñu ko organiser moom moo lu gut tey sport combat yoo mën a dem fépp partout dans le monde dañ koy catégoriser teg ay raaya poids am ay raaya poids yi ci topp am ay raaya ci toppaat am ay mu leer la lii boo ko gañee yaay champion tax ñu naan champion du monde de la lutte africaine champion du monde pour muy leer waaw. jërëjëf kon jox na la rendez-vous ci kanam bu ñu demee ba yi nañ bàyyi xel ci benn affaire bu ñu ruubee làmb ci neexoon neexoon na Ibrahima tekkeekul bàyyil fasu bi Ibrahima Diop. tekkeekul wax wax gaañ gaay tëggal sa combat jërëjëf jërëjëf dégg nañ la bu baax